On est venu aujourd'hui pour répondre à l'appel à l'appel de la jeunesse de la communauté ñoo ngi rafetlu bu baax appel de la jeunesse trentième édition bi nga xam ni Serigne Cheikh Ousseynou Laye moo ko jagleloon ndaw ñi rawatina kàddu Serigne Cheikh Mbacke Laye bi jëm ci xam-xam ak enseignement jëm ci état ak réew mi. di woo yeneen ëttu kër diine yi ñoom tamit ñu génn àddu ci lii am ci réew mi rawatina ci immigration clandestine. l'occasion et la chance d'écouter un discours monumental un discours plein de sens mais aussi un discours plein d'enseignement